mbokk internet bu Guédiawaye info ñu ngi fi au stade Amadou Barry pour la grande finale bi nga diganti ne mi ngi war dox jamono do Notaire à quelques instants di match ñu ngi ak le coach de l'ASC jamono do coach ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté wu waaw man maa ngi tudd Ousmane Sibi maa ngi coach ASC jamono do depuis deux ans ci ren waaw coach ngeen jëm ci match bu am solo instant mën ni dans quelques instants li ci des bëreetul jour ñu à la présentation instant yi groupe bi ban état d'esprit lañ toll ah d'abord bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ak suñu sëriñ si Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñoo ngi leen di gërëm yéen parce que boobu ba léegi daal non seulement yéen a ngi ciy góorgóorlu bu baax mais jig ngeen ñu tamit saa yi boo leen ñëwee ñu gañe préparation bi nag alhamdulilah wax dëgg yàlla bu fekkee ne rek dëgg rek la ñuy wax tout s'est très très bien passé yàlla bu cat dugg rek mais les joueurs sont en forme préparation baax na motivation baa ngi fi d'ailleurs bi ñu ñëw fii suñuy yaay yi ñoo ñu accompagné ba fii ba ci buntu stade bi dañoo doxee koñ ba ba buntu stade bi doxaat ñibbi sol ay ay ay nuróowaale ay yére vraiment c'était c'était beau quoi. waaw ngay ngay joué équipe bu mel ni ASC Notaire ñëpp xam ay ASC Notaire dafa am benn bloc boo xam te dafa compact ba pare daal di baax au niveau défensif tey lan nga jàpp ne mooy consigne match xam nga football football final ñun tey ñëwuñu pour finalu parce que jamono. li final bari na trop fois ko deux fois koy je pense. ça fait 21 ans donc tay ñom 2005 demon nañu final aussi djeluñu ko dem départemental ko donc ñun suñu objectif du final suñu objectif coupe la. final mais coupe ñu vraiment ñu indi donc amul final amul amul amul amul amul amul. Il temps d'observation amul dara dañuy yëg seen kaw football rapidement c'est tout Nous on va jouer notre jeu on va jouer notre jeu ak course ASC Notaire donc course à quelques instants ngi à la présentation léegi match bi démarré euh, maa ngi tudd Namou Camara waaw bon di di ni di leen wax ni rek bon ñun ñoo indi équipe bi yaa ngi dégg ñu war a jongante final bi ak ASC jamono 2 yaa ngi dégg mu nekk final boo xamante ni bu historique la final la boo xamante tey jii Euh, histoire la ci biir histoire parce que euh, li tax final bi am enjeu euh, ASC Jamono de dañu mujj ci kawam ñaari yoon yaa ngi dégg ba doon na dégg sax seen benn seen benn supporter naan notaire man dama koy préféré am final que ma dajeeg moom match élimina éliminatoire donc daje nañ final ñun liggéey nañ li ñu war a liggéey pare nañ sur tous les plans vraiment quartier bi jóg nañ jàppale seen doom tey boo duggoon biir notaire euh, da ngay xam ne tey notaire dafa décider tey jii pour jël coupe bi doublé ko yóbbu yóbbu ko yóbbu ko notaire incha allah. waaw ci kaw loolu aussi coach ngeen di joué équipe boo xam te ne mën naa ni équipe bu efficace la parce que rare occasion yi nga xam te ne ASC jamono euh, jamono 2 dina ko am ci match yi muy joué yëpp da koy faral di exploité tey est-ce que ngi bàyyi xel ci loolu. waaw am naa sens suivre leen euh, am naa sens suivre leen xam naa seen seen côté fort xam naa seen côté faible waaw on a travaillé sur donc euh, ci côté boobu daal euh, am am nañ ci am nañ ci euh, ay ay mbir yu leen di contrer yoo xamante ni tey jii suñ duggee ci terrain bi incha allah vous allez voir incha allah. lan nga jàpp ni moo war a gagné match bi la clé du match. waaw clé du match bi man sama joueur yi dèjà dama leen wax nee leen ku ëpp sérénité yaay gagné match bi donc offre bi ñuy topp nangam parce que j'ai vécu l' expérience en 2010. contre l'ASC Fitch Mbicq ñun dañu ñëw indi offre indi lépp yaa ngi dégg Fitch Mbicq ñëw serein ñu dem deuxième mi-temps Fitch Mbicq dóor ñu 2-0 donc expérience boobu dama ko vécu ak euh, l'ASC moo tax tey ji loolu toog na ci seen bopp euh, moo tax boo xoolee folklore beeg yëpp joueurs yi ñoom bokkuñu si. ah donc coach ñu lay sant di la gërëm di la souhaiter bonne chance. merci beaucoup. Ah? waaw boo leen ko ñu ngi fi toujours Stade Amadou Barry. jël na réaction course bu am te ne mooy course ASC Notaire jël réaction course ASC Jamono 2 ñoom ñëpp li ñu ma retenir seen discours rek mooy course la am te pare nañ pour gagner match bi et que bi c'est une finale mais ils ne sont ci li nga xam te mooy fête bi li nga xam te moo nekk seen bopp mooy concentré ci match bi jëm ko gagner yaakaar naa loolu mooñ fi andi mbokk yi te si kanam tuuti dinañ dem ci li nga xam te